ñoo choisir incliner image ni nii pour ñu koy reprendre ci YouTube ñu am euh, format 16 sur 9 euh, kon ñi def ci commentaire yi pour ñu wëlbati téléphone yi na nañu xam ne ñun ñoo choisir format bi euh, pour mu mën a jàll YouTube 16 sur 9 léegi seen serviteur Clédor moo mooy ñëw am ak yéen benn waxtaan bu gàtt rek ci li xew tey tout à l'heure parce que ñëpp ngi doon xaar verdigu Cour suprême ci procès Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko bi nga xam ne procureur moo ci yokk le délit d'injure ak yooyu nga xam ne bokk ci woon c'était un simple procès pour diffamation léegi cour suprême confirmé na li ñu àtte woon en première instance maanaam content par corps bi rek la dindi donc dafa valider six mois yi kon loolu man yàgg naa leen wax ci sama communication ñu doyul pour euh, euh, génnee Ousmane Sonko ci processus électoral bi parce que boo sukkandikoo ci article L29 bu code électoral dafa viser ay délits ba noppi wax ni délits yooyu mën na génnee nit ci fichier électoral bi ba tudd ci contumace sax mais bi mu limee ba pare dafa ni pour tout autre délit boo xam ni visé wu ko boo xam ni limu ko à une condamnation supérieure à six mois kon avec sursis kon ku am condamnation supérieure à six mois avec sursis ci délit yoo xam ni bokkut yi article L29 lim loolu ci lañ lay retirer ci liste électorale bi donc Ousmane Sonko amul plus de six mois avec sursis moom six mois la am kon nekkul ci cas boobu léegi nag gis naa ñuy extrapoler di indi article L30 parce que L30 dafa ni pour les délits visés à l'article L29 ku ci am diggante trois mois ba six mois avec sursis dañ lay génnee ci processus électoral loolu concerné wul délit de diffamation parce que délit de diffamation bokkul ci délit yi ñu lim yi ñu visé donc ci article L29 bi ñu limee ba pare dañuy pour tout autre délit foofu nag politique mën na fa dugg ci wàllu interprétation mais ñëpp dégg nañu maître Doudou Ndoye man duma ma mais ñun ñu ngi suñu xel di déglu maître Doudou Ndoye ñëpp xam nañu ci ci ci ci wàllu droit euh, kàngam la ci. moom nee na ci bi ko Pape Alé tàllalee micro que kenn mënut a exclure euh, euh, Ousmane Sonko ci liste électorale yi sukkandiku ko ci article L29 bu. code électoral parce que L29 dafa plus une peine supérieure à six mois avec sursis kooku doon kon dafa leer donc may dalal xelu nit ñi ni bu ñu toppee droit kese loolu emporté benn yoon euh, euh, ay droit wu Ousmane Sonko léegi nag ma fàttali leen toogoon naa fi benn jamono joo xam ne dama toog diir bu yàgg communiqué wu ma biñ ma laajee ma ni leen li tax communiqué wu moon diir bu yàgg. parce que dañu nekkoon ci bataille judiciaire te man dama gis ni ci biir défense Ousmane Sonko jàpp naa ne am na ñu ci def une influence négative dama doon junju foofu que ñëpp nekk ñu di liggéey en faveur de Ousmane Sonko dama doon junj foofu parce que dama ci am ay xarit te ñi may waxal ñi may ciblé xam naa leen te euh, on ne tire pas sur la défense de Ousmane Sonko en plein procès léegi nag àgg nañu terminus euh, ñëpp gis nañu bi cour suprême rendre verdigam maître Cheikh Khoureyssi Ba empressé wu def déclaration ni match bi nguur gi gañe na ko que Ousmane Sonko mënatul bokk ci ay élections présidentielles ci ay élections ne pourra plus participer aux élections bi ñu ko nee loo ci jublu mu ni l' élection présidentielle dafa am premier tour ak deuxième tour mais loolu junj la parce que waa APR Mame ñaar Niang alerte yàgg nañu def communication comme quoi Ousmane Sonko bu ñu confirmer penam bi dootul mën a bokk ci benn élection fii ak cinq ans kon maître Khoureyssi Ba loolu lay junj léegi lu tax ma génn ñaawlu attitude maître Khoureyssi Ba boobu nga xam ne dafay def une communication parce que balaa muy àgg foofu daf ci dafa préciser li muy wax moom la engagé man xam naa ko bu baax moom xam na ma bu baax man xam naa luy communication parce que xam naa li muy def kon bu taxawee ni moom day jël responsabilité li muy wax moom la engagé que nguur gi gagné na match bi c'est comme un match de football boo xam ne euh, au dernier moment la nguur gi gagné kon Ousmane Sonko mënatul bokk mais nom de Dieu moom xam na l wax mënatul bokk. ci benn compétition électorale maanaam premier tour ak deuxième tour santan bi mu ne les élections parce que ci français la wax te man ci olof laay wax kon loolu communication bu mu def exprès la parce que bëri na ay relais yoo xam ne pare nañu ci wàllu communication pour wesaare loolu tout de suite on a vu des gens poster et écrire selon son avocat Ousmane ko mënatul bokk ci ay élections donc parce que wax boobu dañ koy jox crédit parce que c'est son avocat qui donc li ma doon wax parmi la defence de Ousmane Sonko am nañu roulé wul pour intérêt Ousmane Sonko parce que fi mu nekk nii foog nañu àgg nañu ba ci cëppaandaw li lii c' est de la communication boo xam ni dafa dafa pernicieux dafa am lu ñu ci jub léegi nag man duma tudd kenn mais ku ni fàng rek ñu def fàng ñun tamit kon lii lu leer la ci sama bët man lu war a leer la ci opinion bi que am na ñoo xam ne dañu ànd ak ñun te nekkuñu ak ñun liggéeyaluñu parce que lii même bu doon dëgg sax du communication booy wax Asamaak nag mu nekk loo xam ni du benn dëgg parce que L29 dafa ni supérieur à euh, euh, six mois avec sursis maître Doudou ak juriste yi ñi nga ñu ñu am xam-xam ci ci wàllu droit yépp pénaliste yi surtout ñoom ñëpp soutenir nañu loolu kon du benn maître xure ci ba mooy ñëw def dans le subconscient populaire. benn benn message de découragement ak benn message de préparation de l'opinion tislaayalee ko euh, euh, avocat wu Ousmane Sonko bu wax ne Ousmane Sonko mënatul bokk ci processus électoral bi non je regrette parce que loolu du du du du du wareefam te li mu ci jublu ñun xam nañ ko man xam naa ko kon je dénonce avec la dernière énergie cette communication orientée de Maître Khoureychiba dès les premières heures du verdict pour dire que nguur gi gañe na Ousmane Sonko mënasul bokk ci ay élections loolu du dëgg en droit du dëgg tout court kon loolu manipulation la ak orientation de l'opinion li leen koy woon mooy reprise yi selon son avocat Ousmane Sonko mënatul bokk ci lii mënatul bokk ci la lii euh, c'est c'est c'est vraiment regrettable Euh, mu jógee ci ci ci ci ci défense Ousmane Sonko yii laa doon déplorer yu mel nii laa mënul woon def en plein procès Adji Sarr Mame moo tax ay jamono man ma préféré woon garder le silence mais léegi nag comme ñu ngi ci dernier ligne ku def fang rek ñu def fang et les masques vont tomber et puis on va contrer leur communication on va déconstruire seeni pexe seeni stratégie ak seeni communication kon li ñu war a retenir mooy Le verdict qui, a, qui, est confirmé ne rend pas inéligible Ousmane Sonko. Parce que L29, ni penn supérieure à 6 mois. la L30, biné entre 3 mois et 6 mois, devenu qui délit L29 doit viser. Délit L29 visé, quel du diffamation. dafa viser, ba jeexal ba teg ci pour tout autre délit. lool kay xanaa kon loolu mooy délit yëpp la visé ci àddina les délits visés mooy yi ñu spécifié légistique maanaam bindinu texte de loi dafa obéir à des standards précis loi duñ ko bind ak réglement comme ni ñuy bindee lettre wala comme ni ñuy bindee courrier officiel dafa am technique rédactionnelle am propre bu ñuy wax légistique donc si on parle de visa mooy loo xam ne dañ koo lim maanaam délit yu ñu lim diffamation doo ko gis ci L29 kon bokkul ci yu ñu lim donc bokkul ci ñu war jël en compte ci article L30 léegi nag ñoom comme dañuy politique mën nañu def une interprétation parce que cour cour conseil constitutionnel moo fi ni woon fii rabat d'arrêt c'était pas suspensif pour écarter Khalifa Sall de la présidentielle de 2019 alors que ñëpp xam nañu ni rabat d'arrêt dafa suspensif donc recours boo ko defee tamit de beneen exemple la ñu noonu recours sax boo ko defee devant la cour suprême cour suprême àtte lu la neexul mën nga dugal tamit rabat boo xam ni dafay ak li cour suprême àtte donc ci euh, bii passé avocat yi dugal nañu rabat d'arrêt bii tamit am nañu latitude boobu kon lii laa bëggoon indi ci précision mu mu doon laaj bu gàtt ñu xamee ko noonu comme moom maître Cheikh Khoureyssi Ba dafa ni li muy wax ça n'engage man tam li may wax je le prends sur ma responsabilité et je l'assume entièrement et totalement